ama sulli baykat boo dégg mu koy wax. taw ba saxal mhm. sulli lay dëkkee mais dara du fa sax. d'accord euh, merci beaucoup euh, Saa Wolof merci. jërëjëfati nga tontuwaale yenn commentaire yi rek. Ah, dafa <laughs> ah, jot naa gis naa ay commentaires. waaw ah, mais daa xëy dem liggéey. te léegi mi ngi noonu di doog a wàcc léegi man tamit maa ngi wàcc damaa ñëw liggéey si. Eh, eh, eh. voilà <laughs> wala yow ba yow bëgg léegi kowaat ba weesoo. est ce dama am engagement fii de <laughs> wax dëgg yàlla. na leer rek na leer rek. non leer na nañ. comme jub jubal jubanti la ñu moom na lépp di leer. naa man sama lépp jub la. Ah, sama sama lépp jub la xam nga. <laughs> man maa ngi bëggoon a tëjaale sax xam nga kii man daal ñoo xam ne internet yoom dañ maa yeb xam nga Galsen Pro moom sama waay la quoi El Mosquito gars yi ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp ñoom du message yi gaay gars yooyu yëpp dañoo baax quoi. Mm-hmm. loolu la mais maa ngi seetu de xanaa yow gars yi yow xanaa gisoo ni ma leere gars yi sama leeraay gi la ñuy wax lii nga bëgg waxaat. la <laughs> leen ko ji bu dem. ale bu dul am retour di ci mu toog Assane Besere fii la ñëw di yàq sama der bi baal ma jàpp ko rek. te dama tell mu daw tëju ci bunt bi. taw téye bunt bi tëj ne ne ne ne du ñëw moom bi mu may ñëw xamul ne baa ngi foofu. waaw bàyyi ko foofu rek. mais eh, ma bàyyi ba mu wàcc rek ma bëgg ko am nu ma ko def. non Assane kii na ma dama dama dem ci Mimi démb. Eh, xam nga tam xarit bu moo gàmm moo yem ci man damay xaw a guddee tëdd ci lawraat yeeg yooyu daal mooy tax. Eh, bu defee nag ma kii ma affaire yi xaw ma jàpp ma xaw a sonn. mais gars yi capturé ma lu ne ñu wax may maa ngi lay sant di sant gars yi. waaw daal mosul nelaw ci conférence de presse. Mm. ñu ngi nañ lu bees bu amee moom nañ xool gan ñi. Ah, dina dee. waaw ah, amee nañ xool gan man mm. man lu reyu ma. ok di wax gars yi rek ku jégu bees gi ah. Mm-hmm. yu naan ndox rek xam nga maa ngi dégg gars yi ci boole ceytaane gu metti ma jëmbal nee na léegi xam nga léegi xool nañu. li waa ji doon wax naan ndax kii nu mu tudd dalinkoo gi Mersen. Mersen tamit naa ko porter plainte de <laughs> yaay siiri bi muy téye gaz bi publicité boobu quoi. naan ko mm. bëgg nañ laa génn réew mi. waaye nangam nag maanaam jéem nañ ci Ousmane sunk mënuñ ci dara ñu jéem ci président Diomaye ñu dem ba yegg mu wax leen mu wane ne foofoo gën a xeere léegi ma jàmbal démb nee na yee yaay Sonko la naan ko moytul <laughs> Diomaye <laughs> non ma jëmbal nag sa tëtëtët gars yi seen pexe jeex na sa tëtëtët. voilà euh, jëmbal. <laughs> exactement comme ni ko comme ni ko saa waxee noonu pourtant remarque boobu laa ci am maanaam fu ñu dem ba bu ma doon Ousmane Sonko su ma doxee ba mu yàgg ma jàmbal ne ma moytul jàddal. damay foncé xam ne fa la sama yiw nekk. non mais te ba pare li ñuy def nii day gën a fàttali président Diomaye. <laughs> ak Sonko sas wi leen xaar. maanaam li leen di xaar ndekete am na ñuy taxaw di xaar ngeen tàggalikoo maanaam challenge lay nekk ñi gën a jàppante gën a bokk man man su ma leen mënoon di maanaam ma jàmbal man bu dama moo ma ëpp xaalis nag mënu ma koy fay mais li mu def nii bu ma ko mënoon di fay dama koy toll di ko ci fay de moo waajooju Modou Boussa Dieng tappalekat boobu en tout cas daal guléet ci Sénégal nga gis ñoo xam ne guléet ci nga gis ñoo xam ne ni ñuy opposé mooy diw ak diw dañ taaxali ko ah, yàlla nañ taaxali loolu yëfi iblis moo doon def loolu yonent yàlla Ibrahima Modou Boussa Dieng mm-hmm. Madiambal Diagne ak ci euh, Thierno Bokum ak ñii nga man li bëggaane def sax benn instant aw ma problème mais man boo bëggee teg ci seen ne yàlla na diw ak diw tàqaloo loolu jëfi saytaane la te seytaane yàlla da ko rëbb am na nag saytaane ci nit ñi ak mm. seytaane ci jinne yi dama ne mm. ma jambal Modou Boussa Dieng ak mm. Thierno Bokum li ngeen def jëfi saytaane la mooy di wut ñaar ñu xuloo wala yow ak ku ko ci mënoon def it noonu laa lay traité du mu am ci yow respect voilà merci Mansour ñu joxante <laughs> rendez-vous. merci beaucoup jotaay ak Saa Wolof xam nga nii la. Euh, xam naa du ñàkk nag moom tey bonus lañu am nii ak promo parce que ça ak. Euh, mariage bés bi nii moom dégg naa yombutu la am ci plateau yi mais ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko ñaanal itam wax dëgg yàlla euh, mariage bi suñu borom barkeel ko ah, may leen ci njaboot yu barkeel yoo xamante ni dañuy bokk ci ñuy taxaw may ñu ay ceddo yu ndaw yu bari <laughs> muy noonu mm-hmm. doon ña njaboot goo xam ne daal dañuy bokk ci ñuy taxawu réew mi saa su parce que loolu mooy rêve ku nekk di la mm-hmm. jaajëfal tam di jaajëfal biisoog internet yi doon ànd mi ngoog